ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw auzubillahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabilu mi wala alihi wa sahbihi wahdimihi wasalama tasliman auzubillah bisimillahi ni wàllu yàlla mbokk internet yi nga xamante ne yéen baaxoo di suivre seen émission bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro ci biir Salam Vision ñi ngi amaat tey mbégte mooy li ñuy wax gëstu ñi nga xam ne borom xam-xam lañ te wax dëgg yàlla ni ñu koy faral di waxee saa su ne xam ngeen ni nun fu nu dem rek dara nga fa ndax du ku ne la ñuy jóg di toogal du ne la ñuy jóg tam di jokk jëflanteel ci wàllu wi ndax wàllu wi dafa bëri yu mu yu ci laxasu ak yu mu àndal waaye fii nu ñëw ñame nañ fi fii nu ñëw it wax dëgg yàlla euh, euh, duñ ne xam nañ fi waaye miin nañ ndax ku xam ki nga ki nga xamante ne daanaka sa kóllëre la sa xarit la sa am di jàmmal sa soppeele ba nga mën a sañ a defanteeg moom lu bare baree bare kon ku mu la booleel kooko di nga ko ñeme moo waral ñu ñeme fii ñu ñëw ñeme kii ñu seet si te itamit liñ ko jot a gis mu génn ko ci àdduna ci yu mel nii wax dëgg yàlla boobaak tey gisaguñu ko def revendication mu jëm si ci moom kon kookee dañ koy ñeme dañuy sañ a moom jokkoo moom waxtaan ak moom te lépp itam daal di jëm ci li nga xamante ni mooy xam-xam duñ ko présenté ndax àdduna xam na ko à les réseaux sociaux duñ présent présenté ndax ñi muy jëflanteel kenn ku ci nekk daanaka boo indiwul fukk indi nga juróom kon kookee xam nañu ko ñu gën ko xam ci turu Cheikh Omar Baye Cheikh Omar gars yi ne nañ borom kurus gi waaye man bu ñu demee ba ci biir daal leen ne daam lu ma ci dolli Baye Cheikh ñu ngi lay nuy di la ziar waaye di la dalal ci biir jotaayu xam-xam bi macha allah naan laan salaamaaleykum wa rahmatullah aoudu billahi mbokki mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki biir réew mi ak mbokki bitim réew ñu ngi nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi mm-hmm. ñu ngi nuyu ñi ci jàng bi di nuyu ñi caabi di ñuy ñi ci lalu hôpitaux hmm. wa rahmatullahi taala wa salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Baye Cheikh Omar borom kurus gi eh, man bu ci biiree dinaa wax li tax ma bëgg cee doole leneen incha allahu rabbi Baye Cheikh fi may tàmbalee xam naa ni neexu la ndax jot gis naa ci sa ñaari jotaay yu mujj nga ni waxi seet moom boo ñoon dootoo ci wax waaye Baye Cheikh li tax mënuñoo ñàkk bañ a wax ci loolu mooy la wax confirmation bi am sa diggante ak ñi nga xam ne yaa ngi jëflanteeg ñoom ci wàllu woowu bu ñu ëlbatikoo ñoom wax ba confirmer kon yël nañu laaj la ndax yow seet gi daf ci am ay cote particulier yoo xam ne dañ la ko dénk wala da ci gëstu loo xamante ni gars yi gëstuwuñ ci ndax xam nga seet moom dafa doon lu lay waar gars yi dañuy wax dañuy seet waaye bëri na ci ñoo xam ne duñ seet dañuy laaj <laughs> yow yow particulièrement nit ñi ñoo am lu ñu wax ci yow looloo tax ñu ñëw laaj si waat la tey di la jégul tam question bi ndax bëggu ko woon waaye faaw nga leeralaat ñu ci ndax li ci am lu particulier lu mu doon. alhamdulilah macha allah sëriñ bi laaj nga question bu am solo dugg nga ci jumla boo xam ne itam jumla bu am solo la. Euh, li taxoon ma ne dootuma sax ci li jëm ci wàllum seet ndax macha allah doyo bi nga xam ne nii yàlla may nañu ko ci seet xusuusee bi nga xam ne nii yàlla may ci seet mm-hmm. te li faral di wax. ci waxtu bu nekk ak sama jotaay bu nekk. Mm-hmm. mooy ni ci ñaari ponk yi rek laay seetee. ñaari ponk yi may seetee. Mm-hmm. bi ma ko toppee tarbiyu ma ko tarbiyo bu ndaw. Mm-hmm. tarbiyu ma ko weer tarbiyu ma ko at. tarbiyu ma ko ñaari weer tarbiyu ma ko ñaari at. daanaka sama dund yëpp laa ko tarbiyu ba wax xataa ni ma toogee di wax ak yow nii. maa ngi tarbiyu seet. macha allah te li may seetee mooy ramli. ak listiqaar to ku xam ñaari bunt yooyu bu nekk mhm. xam ne mbooleem li nga xam ne nii doomu aadama bi doomu aadama bi mu ngi ko aajowoo jëm ci dundam ak jëmmam mhm. soo jaaree ci ñaari bunt yooyu ko xam ci lu njëkk ak ci mhm. lu nëbb da ko xam ci lu mujj ak ci lu feeñ ñun nag alhamdulilah sëriñ bi comme li nga wax rek depuis ñu commencé di seetee ramli yàlla ngi ci defal xusuusiya jagleel ba yow mi ñëw ci ñun tey hmm. ñu seetal la hmm. booy ñëwaat da indi keneen waaye ñëw ñëwalatoo sa bopp ndax alhamdulilah hmm. li nga soxla woon ci aajowu biir ak biti li nga ñàkkoon yaakaar ci sa dund li nga doon jiixi jaaxa ci sa dund li nga doon jaaxle ci sa dund yàlla def na bi yàlla ballalee sa loxo ci ñun ba ñëw jaarale la ci seen biir ramli wala seen biir listiqaara alhamdulillah sa mbooleem aajowu biir ak aajowu biti yàlla na la ko ci yàlla xamal nañu ko ci te wax nañ la ko ba mu doy la doyin boo xam ne ni yow da ngay xëcc ci ñeneen mm-hmm. jëmale si leen ci Cheikh Omar Niass mm-hmm. waaye yow ñëwalatoo sa bopp ndax li nga soxla woon yépp mm-hmm. alhamdulilah yàlla wanee na la ko ci ñun bu baax a baax sëriñ bi bi maanaam ma bañ a jël temps bi su may yaatal ci seet wallahi danañ jël lu ëpp waxtu ci <laughs> émission bi ndax yàlla jagleel nañu ci may nañ ci xusuusiya dama lay bàyyeeg mbokki biir réew mi ak mbokki bitim réew yi joto jëflanteeg Cheikh Omar Niass hmm. borom alquran borom kurus gi ci wàllum seet hmm. ñoom laa lay bàyyee nga laaj leen sama digganteeg seet lu mu doon hmm. foofu laa yem ci gàttal sëriñ bi alhamdulilah macha allah Cheikh Omar ci leeral bu am solo boobu wax dëgg yàlla am nañ ci ay écho yu ñu ci jot sax moo waralaat ñu indi bi bi ma seetaanee sa yenn interview itam dama ni Cheikh Omar man kon gars yi lu tax ñu yemale ko ci borom kurus gi borom alquran gi waaye man dinaa ko dollil beneen tur man dama naan borom sarax yi ma bëgg ñu dugg ci bunt boobu Cheikh Omar ak ay saraxam ndax Cheikh Omar am na ci ñoo xam ne ci wàllu seet boobu wala ci wàllu listixaar mu gis ci ba egg ci ci benn dayo boo xamante ni am na ay sarax yoo xam ne dala koy tegtal wala mu digale ko nga def ko boo paree yow dootul jar ngay dem uti ji benn muslaay wala benn ñaan pour di ko sango wala di ko takk loolu tam lan la. Ah, alhamdulilah sëñ bi macha allah. dugg mhm. nga ci bu ama am solo. boo xam ne ko temps mhm. ci sama groupe whatsapp yi nga xam ne nii soppee Cheikh Omar Niass ma génneel la ojo yëpp tegal la benn par benn. alhamdulilah par jeudi bu nekk. Mm-hmm. dinaay dugg ci groupe bi. Mm-hmm. wax leen ne leen ku ci mën. Mm-hmm. def sarax nangam def ko. ci bés bi ci weer wi fi mu toll ci bés bi fu mu toll ci adat bi fu mu toll. soo ko defee mboolem soxla boo am. mooy ki tawat. mooy ki bëgg a wér hmm. mooy ki bëgg am hmm. mooy ki nekk ci commerce hmm. mooy ci lu doomu aada bi mënti nekk chaque jeudi sama groupe whatsapp soppee Cheikh Omar Niass yi danaa ci jàllale sarax yoo xam ne nii ñoom dañ koy partagé ñeneen di ci fajee seen soxla ñeneen di ci fajee seen aajo te bokkuñ sax ci biir groupe bi sëriñ bi sama diggante ak sarax hmm. alhamdulilah am na ñoo xam ne nii wallahi alazim wax sum bi rabbul kahf dañ may téléphoné ne ma sëriñ bi man de mbaam sax mbaam suuf sax génne naa ko sarax <laughs> waaye sëñ bi romboog man ci loo xam ne nii buy dem bay bëri bëri ñaar téeméeri dërëm lay toll wala téeméeri dërëm hmm. sëriñ bi li ma doon sàkku ay at yàlla fayee ko ci sarax bi hmm. ma leen di question bi ma leen di tontu buñ ma waxee loolu mooy ni doomu aadama bi ci lépp lu mënti nekk daf ko war a tarbiya daf koo war a gëstu mm-hmm. daf cee war a géejoo mm-hmm. tax xaalam bi dafa yaatu mm-hmm. lépp loo fépp foo gàttan lu yemale fa say soxla rek foofu lay yem waaye boo géejewoo ci mboole mi ponk ci mboole mi bunt bépp jàmm yàlla bu dab bu yàlla ballalee ci sa loxo aajoom da naan kaan dina baax mu doon aajo bu ko yéem lool. Mhm. aajo bu ko jaaxal ay at. Mhm. aajo bu muy gëstu ay at. te mënut mhm. a faju yow da nga koy reetaan. ne ko ay ko toog di nettali ci lu dul yàgg dara. danaan sëñ bi moo kan. waaye ci biir sarax yi nga koy digal. wallahi ci la lay ooyee day jooy su ma la génneeloon sama téléphone bi war na ko jooy. am na ci ñoo xam ne ni dañuy jooy. na ma sëriñ bi lu tax ma yéex laa xam. ma ne leen yàllaa ko ballal yàllaa ko dogal mm-hmm. ñu soog di xamante mm-hmm. te doomu aadama bi fii yàlla dogalee dundam sa dund ak moom pour ngeen xamante bu alaa kulli xaalin bu agsee rek xamante dina am mm-hmm. waaye sëriñ bi ma bañ a guddal samay sarax alhamdulillah yàlla ñi ci defal xusuus yi ak jagleel boo xam ne ni bépp doomu adama bu ma mës a wax ne ko defal nangam aajo bi dina faju defal nangam problème bi dina jeex ci yow alhamdulillah maa ngi lay bàyyeeg ñi nga xam ne ni jot naa ci jëflante ñoom ci wàllum sarax jëla sa micro trottoir nga wër laajte Cheikh Omar digganteem ak sarax lu mu doon da nga bëreeg junnee doomu aadama yoo xam ni da nga dajeeg ñoom mm-hmm. danañ ne la man sanguwuma takkuma raayuwuma waaye saraxam la sama mboolee mi aajowu biti fajoo mm-hmm. sëriñ bi foofu la ñuy mën a yem ci gàttal alhamdulilah suñu diggante sarax a ngi noonu moo tax ma ne la kon man danaa ci dolli beneen tur waaw nañ ci boole kon ci tur yi buñ ne Cheikh Omar borom kurus gi ne waaye borom sarax moom gars yi am na luñ ma ci jot a xam ne euh, bu ma paree faaw ma jëflante ma seet ma am lu ma ci kii maag yow incha allah bu soobee suñu borom mu doon lu am solo sant bu baax la ñuy def rek ñaan sama borom gën a taxawaay bi te gën a yokk xéwal ndax wax dëgg yàlla lii ngeen def dafa am solo xam-xam boo ko bu bu yaatuwul jëriñëwul te wax dëgg yàlla jàmm yàlla yi dañ ko soxla na ci jamono ji ñuy nekk may bala may sori ma dégg nga am loo xam ne junjoon nga ko tey jii ci euh, Ousmane Sonko bala may ñëw ci sunu dëgg-dëgg émission ndax faaw nu waxtaan ci wàllu kayit waxtaan ci ñi nga xam ne ñi ngi ci réew mi bëgg soxna te mënu noo fexe ba ami soxna sëriñ suñu dem ñii naan rab la ñii naan nangam li ñi naan nangam waaye loolu moom xam naa du ñàkk di nga ci indi détail Ousmane Sonko fan yee ñu seetaan si vidéo boo defoon ba wax ci garde corps am bu ko jegee woon lool tànkam bay metti def def ya ci amoon ak yooyu ba digle woon sarax ne réew mi ku bëgg a mucc na ko def man looloo tax man baatu sarax bi dama ko dafa dafa fu ma toll parce que dégg nañ ci wax mag ñi ñu wax ni maam sarax sax dana dana fànq deegu ñaaw kon loo xam ne mën na fànk deegu ñaaw kon nit ñi dañ ko war a farataal te te xam dëgg-dëgg naka la ñuy saraxee mais lan lan moo la dee woon wala ci turu turu yàlla yi ban nga ci yoroon ba ba ba loola feeñ ba nga digle sarax boobu nga digle woon ak la nga gisoon ci mbokkum Ousmane Sonko moom gàddu koram bi. alhamdulilah sëriñ bi macha allah ci hmm. sa question bi turu yàlla yi yaatu na lool. wallaay na lool. Hmm. waaye ku nekk xam na lan mooy ismullahi al azam. ku xam na turu yàlla bu mag bi ñuy wax ismullahi al azam. Hmm. bi seen kurus gi. li tax ñu ñuy wax Cheikh Omar Niass borom kurus borom Alquran. te suñu kurus gi lépp luñ ci wax doomu aadama du dañ seen alquran gi lépp luñ ci wax doomu aadama du dañ mm-hmm. Ousmane Sonko sama émission boobu noonu comme ni ma ko waxee woon ñu jege ci moom mm-hmm. bañ naa ko ba damaa indi woon misaal mi mm-hmm. ma ne am na ci ko ci am taxawaay boo xam ne ni tànk càmmoñ bi dafay métti bari naa ci lool ñoo xam ne ni jokkoo woon nañ ceeg man ma am lu ma leen ci waxoon ci ay tegtal ña ma ko waxoon oowaat nañ ma ne man lañ def ci tegtal kat sëriñ bi alhamdulilah sotti na ci wàllum sarax mi ngay wax noonu. Mhm. pour réew mi am dal. Mhm. pour am jàmm. Mhm. képp ko xam ne nii mën nga alxames bu nekk. boo yeewoo suba teel alxames bu nekk suba teel. ki feebar. ki am soxla bu mënta faju kii liggéey. alhamdulilah sëriñ bi. comme ni nga ko waxee ci wàllum sarax. maa ngi digal bépp sénégalais sénégalais foo mënti nekk ci àdduna bi. du ma ko yemale rek ci réew mi. surtout ndax sarax. dafay fànq jafe-jafe mm-hmm. moo xam jafe-jafe bu mënti doon surtout sarax dafay yokk fan wu gudd mm-hmm. sarax dafay yokk wërsëg sarax dafay indil nit ki lijaaba mm-hmm. ak bayre ak xabul ak fatxu te doomu aadama bi bu amee loolu rek léppam yéwén na sarax da koy matale maa ngi jox nit ñi benn sarax boo xam ne nii dama ko tarbiya ay at ci biir ismullahi al azam ba doon lu wér te dama ciy ñamal askan wi rek benn boo xam ne ni fur fi réew mi toll na mhm. gis nañ ne jaxasoo yee. Mhm. gis nañ waxtu bu nekk jafe-jafe yi am ci biir société bi. Mhm. ci ndaw ñi. ci mag ñi mm-hmm. ci góor ñi ci jigéen ñi képp koo xam ne nii yàlla mën loona la mm-hmm. chaque jeudi muy alxames mm-hmm. boo yeewoo suba teel yomb na lool ñaari miisu mburu kilo mburu ñaari kilo mburu boo ko jëndee ci bitig bi xoolal ki ko aajowoo xoolal ki ko soxla ndax sarax nag sëriñ bi nit mën na koo génnee te du xam ki ko war a jox dafa am solo lool lool lool lool lool lool <laughs> pour nit xam saraxam ki mu ko war a jox dafa am solo lool itam. Mm-hmm. ci nit ki génnee sarax xam liy jafe-jafe mu yéene ko ci sarax bi. Mm-hmm. dana ko def te bu ko génnee kam kay jox sax. Mm-hmm. yéene bi mu yéeneel boppam ci mbaax mbaax ci sarax bi sax dana jalaale kam jox sarax bi. mbaax mbaax googu noonu. te dafa am solo lool ci nit ñi di ko bàyyi xel ci sarax. surtout li may joxe tey. mooy ñaari kilo mburu yooyu. bu ko ab bu ko Sénégal gii ci biir réew mi bitim réew saxoo di ko def. incha allahu rabbi képp ku ko def ñaari yoon. Mm-hmm. sama numéro téléphone yaa ngi noonu. waaw soo ci gisul benn nataaji. Mm-hmm. boo ci gisul benn natiija. Mm-hmm. boo ci gisu benn yokkute. oo oh, maa ne Cheikh Omar Niass yaa ma waxoon yaa déggoon naa ngeen def leen sarax nangam def naa ko sama dara sottiwul. boo ko dëgg nañ la oo ci seen service commercial bi ne leen Cheikh Omar Niass saraxam bi mu defoon. def nañ ko dara gisuñ ko. lii man maa leen ko wax. dëgg la wallaahi laa ñaari kilo mburu. li garaaw mooy trois cent cinquante ñaari kilo mburu. jafewut. te li li li ñu yàlla defal fi ne mënuñoo génne trois cent cinquante defal delloo waat ko ci jaamu. déggoo ma de dama mhm. boo ko defee ñaari yoon. Mhm. sa bépp aaju boo ci yéene fajuwut. Mhm. ol Cheikh Omar Niass ci numéro téléphone bi ne ne ko déggoon naa la nga wax sarax te def naa ko. gisuma dara loolu day gën a gaaw moom. <laughs> pour wax la ñun fi ñu toll ci turu yàlla. fi ñu toll ci ismullahil ahzam. fi ñu toll ci jagleelu sarax. sëriñ bi. te su ma la ko doon indil tey ci sarax nga di ko def. uqsim mhm. bi rabbul kaaba kenn du la teree tekki ci àdduna. Mhm. kenn du la teree dem am teraanga ci àdduna. Mhm. kenn du la tere am fan wu gudd ànd ak wér ak njaboot gu barke ci àdduna. te lépp rek ci biir sarax la. ndaxte doomu aadama bi. léppam. sarax la jiitu. avant mi sang. ndax sarax mu ngi mel ni yow mi jël say bal def ko ci biir fetal gi. boo dóorut du dem. dëgg la sarax bi moo nekk fet balu fetal bi. kon boo dóoree sarax bi mu dem. càngat gi mooy fetal bi nga téye rek. Mm-hmm. lépp looy nit di def te jiitalu ci sarax day sonn rek da gis nit ku ne ma def naa sangoo naa lu ne takk naa lu ne. Mm-hmm. ma ne ko sëriñ bi saxoon lii weer di ko saraxe. Mm-hmm. du la jox sangat du la jox raay du ma la jox dara saxoon lii weer di ko sangoo di ko saraxe rek yow. wax suñ bi rabbul kax ba daf may wax ne ma soxlaa fukki at faju na balaa weer bi di mat ci sarax. allahu akbar kon suñ digganteeg sarax sëriñ bi. bu ciy xuus. bu buñ ciy développé. Mm-hmm. oxsim rabbul ba dinañ jël ñaari waxtu ci émission bi. te benn bu ci nekk. Mm-hmm. mën naa laa sarax bii dana faj aajow bii ak bii te ñaari kilomètres yi ma la wax. Mm-hmm. day fànq dee. wallaahi day indi fanu day indi wërsëg. nee naa la day indi lijaaba day indi xabul day indi fàq. te doomu aadama bi loolu dajee ci moom. matale na lépp jàpp ci wallaay ndeysaan <laughs> ñaari kilo mbur yi ma la wax ni képp ku ko def. ñaari yoon. am sarax te am ci aajo am ci soxla ta faju boo mhm. man saaga ma wala nga wax ma lu la neex ci gàttal maa ngi koy digal réew mi yëpp ngir réew mi am dal macha allah ngir réew mi am jàmm mhm. ngir réew mi am teraanga goo xam ne ni ñu ngi koy séentu mhm. ñun ñu fekkee ko ci jàmm ak salaam mu bañ a am benn fitna ak benn yëngatu yëngatu sëriñ bi alhamdulilah tarkalla jërëjëf Cheikh Omar wax dëgg yàlla lii moom leer na te li may li may wax waxtaan wi li ci neex mooy fi mu ne ki nga ki nga xam ne moom la laaj muy tontu li muy tontu da ko xam ko xam fi mu jëm itam macha allah li ma gën a jaaxal sëriñ su bëri dañuy def émission mais dañuy tëj lu commentaire yow man dama laa dégg nga ne sama sama émission commentaire yi nañ ko tëj nañ bàyyi nit ñi ñu wax luñ bëgg lu waral loolu. alhamdulilah sëriñ bi ndax jëflante bu rafet. Mm-hmm. ak àddina. Mm-hmm. jëflante bu rafet. Mm-hmm. doomu aadama yi. bu rafet. ak ñi la yàlla ballalee ci sa loxo. damay toog ci sama biir kurus. kooku sëñ bi rabbul kaaba. li may ñaan suma boro mm-hmm. ginnaaw bu ma toroxloo ci kanamam. Mm-hmm. xamal ko ne ko jaam bu xeebu laa ci kanamam mënu ma doon dara ci kanamam mooy suma buur. Mm-hmm. man maa di jaamam. waaye dama koy ñaan itam ku aajoom narta faju bu ko yàlla tàggat mu jëm si ci man. sëriñ bi alhamdulillah. amul benn tur bu ñu liggéey lu dul ismullahi al azam. billahi la laa ilaha illa huwa buñ ci bëggoon a tukkal bi tey tukkal ko ci. ndax am nañ ci bu wér. bu doy. bu ñuy fajal mboole mi aajow biir ak biti. képp koo xam ne ni yàlla boole na ma ak moom. Mm-hmm. soxlaam dafa faju moo tax ma am fit. ak mm-hmm. sañ-sañu ne bu kenn tëj samay commentaire nañ ko tijji nit ñi commentaire seen bopp. Mm-hmm. képp ku ne Cheikh Omar Niass borom alquran borom kurus gi mës na maa lekkal fukki dërëm. sama aajo fajuwul. mës na maa lekkal fukki dërëm. ñu waxtaanee nangam sottiwul. wax ko ci commentaire yi wala ga jël numéro service commercial lu site internet boobu nga oo leen ci kalaame ma ak ñoom. ndax lan jëflante bu rafet ak jaamu yàlla yi. ndeysaan soo xamee fi nga bokk. Hmm. xam li nga doon. Hmm. xam li yàlla ballal ci yow. dama koy faral di wax ci sama mboolem émission. Hmm. ñun ay doomi daara lañ. ci daara lañ juddoo. ci daara lañ ñu ngéntee. ci daara lañ ñu nampatal. ci daara lañ ñu yar. wax naa ko ci sama benn émission ma ne bu ñu doon ootee ku am diplôme ci réew mi nii société baa ngi nii nga liggéey. Cheikh Omar Niass du bokk ndax amul diplôme mu liggéey waaye am na diplôme mu daara. am na diplôme mu ñaan yàlla. Mhm. am na diplôme mu mbooleem aajo boo xam ne ni jàmm yàlla bi indi na ko ci loxoom bi mhm. mu faj ko ci lu ci ay minutes yu néew nag. Mhm. ci zahiran wa baatina mhm. moo tax ma am fit am sañ-sañ mhm. xam fi ma bokk ak li ba ne bu kenn tëj samay commentaire ndax jëflante bu rafet bi may mm, doon loo xamante ni dafa war jullit bu ne muy jëflante ak sa nawle yi fi ne daanaka jëflante bu rafet dafa am solo lool te ni te te nit ñi bàyyeetuñ ko xel ndax jamono tënk na leen ñi jamono fëx na leen ba ba ba ba ba ba li ñu am tey rek la ñu gis noonu amee alal rek la ñu gis waaye bàyyiwuñ xel seen diggante ak jaamu yàlla yi nga xam ne suñu borom nee na jaamu yàlla gi gën ngi ci diggante jaamu jaamam ñaari jaamam nga jaamu yàlla ci biir jaamam ñi kon tey ji mooy waral li ngay wax ni jëflanteeg nit ñi lu rafet jëflanteeg nit ñi lu baax yërëm leen teg leen ci yoonu mu mustaqiim dara gënt gaaw jaamu yàlla ci ci ci ci ponk yi defe naa ni te suñ borom a ko wax macha allah mu doon lu am solo mbégte la ñuy amaat bu baax baax xanaa fi ma bëgg ñu dugg rek ndax nee naa li ma bëgg laaj lépp tey ji mënu ma ko ndax fu ma bëgg kupp rek daanaka sama xel daal dañ doom ci leneen mais naka la Cheikh Omar def ak suñu mbokk yi nga xam dañoo ne bitim réew amuñu kayit wala amaguñu liggéey bu stable te li toog ci réew mi yaakaar leen bëri lool lool lool lool lool lool lool lool. bi. Hmm. bu ngeen teeloon a ñëw di ngeen fekk ci fi dogee tey. Hmm. mu waxal leen ci làmmiñam ngeen dégg. ñaata at la nekk bitim réew. am problème mu këyit. am problème mu xëy. Hmm. am problème mu dajale sax lu dundee. bu ngeen teeloon a hmm. ñëw. da ngeen ko fi fekk mu nettali leen boppam fi Cheikh Omar Niass jaar ak moom. ak ci digg bi ma ko fekkoon. Hmm. lu bari doon jafe-jafe ci moom. Hmm. su fayekuwaan léegi cent euros mu ngi xool sëriñ ko weexalee. allahu li ma njëkk a wax bi ma bi man de damaa bëgg ku ma seetal waaye aw ma ñaari dërëm. te ku ma ko wax dag ma naan kamaj ku fe ma ne ko yónnee ma li ma soxla ci yow heure nangam nga ooma poxu bi rabbul kaaba sëriñ bi bi ma ko commencé di wax li ma gis ci moom dafa commencé jooy. ndeysaan. dama sëriñ bi gisuma la waaye xam naa ne borom xool bu yaatu nga ndax fi ma jaar ak doomi aadama yi foofu Sénégal ci sëriñ si bëri na lool. Mm-hmm. mais ku ma wax ne ko seetal ma daf may coupé moo ne ko yoruma xaalis. sëriñ bi kooku ñu ak moom laalu ñaar dërëmam ñu ak moom ba am kayit. ñu ak moom ba am ba am liggéey. ñu ak moom ba seet si njabootam. ñu ak moom ba mu commencé fondement. uqsim bi rabbul kaaba parce que ñun ñu ngi xool jaamu yàlla yoo xam ne nii yàlla def na ñu am benn jafe-jafe bi yàlla ballal leen ci ñun mm-hmm. ñu mën a wane seen bopp ci ñooñu mm-hmm. sëriñ bi mm-hmm. wesu faar gii ma dëkk du ma fi dugg oto su ma oto fi laa koy gaare di dox dox ba bias doore bi ba fu ma neex ndax sëriñ si ko ñeme bari na tey <laughs> dañ leen di wàññi de. néew <laughs> ma amul waaye dañ leen di wàññi de. du <laughs> may dem woo Nord Foire gi damay jéggi passerelle bi dox dem aw ma tëju ma tëju may vitrine. Mm-hmm. dawaluma oto dama mm-hmm. koy gaare. ndax sëriñ su ko ñemee bëri na tey. xam nga lu sabab loolu. Mm-hmm. jëflante bu rafet bi ngay jëflante ak jaamu yàlla yi. sëriñ bi sama diggante ak waa bitim réew. ci wàllum këy. tijji leen commentaire yi. ñi ma ci yàlla boole ñëpp ci këy. dinañ leen wax fi ñu jaar. ba agsi ci man. Hmm. ak diir bu gàtt bi ma leen wax muy 15 jours buñ dugalee wala un mois buñ paree li may def ak ñoom ñu dugal du ko mat seen kay génn. muy Italie muy Espagne muy Angleterre muy Amérique muy fu mu mënti nekk ci àdduna bi ba biir ba ci réew mi. Hmm. nit nee na ma uti naa visa Amérique ay yoon wala ay at ñu may refoulé bi ma jëflante ak moom ci li may jëflante moom dama ne ko sëñ bi man sama kayit dama lay wax ne la defal say sarax. Mm-hmm. lii sama xàq teel ba sa kayit génn nga soog di indi sama xàq man noonu laay jëflantee kayit ak sa mm-hmm. na sëriñ su ko ñëwee. <laughs> tey jii képp koo wax ci kayit dana laan tàngam laa koy jëflante tàngam mm-hmm. góob noonu bu ñëwee moom yoonam nekkatu ci man dama naan laan sarax yi def ko lii sama xàq teel ba sa kayit génn ba pare nga soog di indi sama xàq ndax loolu ku wóolul boppam dina ko def ku amul xam-xam ak xusuusiya jagleel bu ko borom bi jagleel ci li muy jëflanteeg jaamu yàlla yi ndax dina ko def kon su ma diggantee kayit sëriñ bi foofu laa ci yem noonu laa ci jëflanteeg jaamu yàlla yàlla <laughs> macha allah Seydina Omar <laughs> waaw wax dëgg yàlla nee naa nee naa nee naa nee naa dafa neex a déglu ndax da wax loolu li mu gëm la lay wax et puis Seydina Omar da il parle sans gêne et puis li mooy àdduna nit il faut parler sans gêne mooy wax li nga ko yëgee ni nga koy dundee Euh, wax yi ñuy créer di ko fabriquer yi ni du neex a sax dégg fi mu toll nii mais wax ji dafa neex a dégg kon loolu mooy li ci ëpp solo te ay borom dégg-dégg nag ñooy déglu fi mu toll nii macha allah yal na yàlla xeb dalu te gën a dëgëral taxawaay bi sunu mbokk yi def ci bari ñoo xamante ni buñ ne amul jëkkër mi ngi bëgg a magal ñu ne rab la ñàkk jëkkër ak ñàkk soxna yëpp ñu jël jiñ rab est-ce que réellement rab rek mooy def loolu noonu wala lan ak lan lan nga leen mën a dimbale ñoom itam. ci diggante wàllu am jëkkër mhm. ak am jabar mhm. am na ci loo xam ne nii nit ñi seen biir ñooy xeexante comme nga bëggoon benn góor lool mhm. mu wor la wor gi mu lay wor da nga ne xaaral ma xar bu wante ci ak moom bu mu amati jabar wala kum sëy sëy bi bu mu neex mu tas la plupart ci réew mi nekk ci société bi nekk lu ci ëpp loolu la sëy yu tas yi ak am lu nekk mm-hmm. bëgg am jëkkër wala bëgg am jabar mu jafe la ah. orante gi la orante gi moo indi xar bu wante bi mm-hmm. ci sama émission yi passé mm-hmm. dama lay wax ma ne la man bu ma xoolalee nit ki mu bëgg am jëkkër wala mu bëgg am jabar rab nekkul ci moom def-def nekkul ci moom dama lay laaj na sellal nga yaa ngi matala say waxtu juróom nga ne ma waaw ma ne la jëlal dogu nangam lu yomb dee ko def heure nàngam balaa une semaine bu fekkoon ne yaa ngi ngoro yàlla dina la ballalal loo takkee bu fekkee ne ngoro goo yàlla dina la ballalal koo ngoro bu dee ne góor noonu bu dee ne jigéen noonu. ok fayeeku ma la ko mhm. bi ma lay jox dama koy may. ndeysaan aka gore bu fekkee ne nii liggéey nekkul ci yow. Mhm. bu fekkee ne rab nekkul ci yow. Mhm. dama lay may dog ne la jëf ko nangam. soo gisul benn résultat. boo amul benn nataay ci loolu. téléphone ma ne ma gisuma ci tus. ci li ëpp ci réew mi. Mm-hmm. sëriñ bi nit ñi dañ naan rab mooy teree am nit ki jëkkër wala mooy teree am nit ki jabar. liñ diñ rab dafa bëri waaye ëpp liñ diñ dafa bëri. dafa bëri waaye li ci ëpp warante gi la. et ça xam nga ne. Mm-hmm. nit ki dana la bëgg lool di def ci yow lu nekk. Mm-hmm. nga wor ko wor googu noonu bu la jigut. mën na la dugal ci lu moo xam ni ku góor ki moo xam ni jigéen ki. te fi ñu toll nii warante bi dafa bëri. xam nga wax lu koy doy waar seen namar mooy warante bi xamul tax mu bëri nit ñi dañuy war te duñ bàyyi xel ne sax war nañ. wallahi dañuy or te duñ bàyyi xel sax war nañ seen ndaw ne rawatina nag nga or gor. la ilaha illallah. lu mat a oh. bàyyi xel nga noonu. Mm-hmm. or koo xam ne ni dina la teraanga bu nekk. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bi nga bi mu takkee xadijatu mm-hmm. daf ko waxoon ne ko lépp lu ma am ci alal jëlal waa Màkka luñ taxaw. xadijatu dof na ah Muhammad ibn Abdallah mi mu jël alalam ji yëpp may ko waaye kii dof na waaye kii dof na waaye xam nga lu ko yenent bi delloowaat ci teraanga gis nga teraanga gi mu defal ya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gis nga lu mu ko delloowaat ci teraanga dana ko déedéet mm-hmm. jëlal sa alal nga doxalee ko ni nga ko daan doxalee mm-hmm. man de ma utal ndimbal mm-hmm. lu may dem di jaamu ji sama borom parce que boobu mi ngi jaamu jee boromam ci xunt bi ci jabaru sawruut nekk ci xunt bi nekk ci yoonu minam ci jabaru sawruut fu la yonent bi sallallahu alayhi daan dem di wéetal boromam. Mm-hmm. te boobu yàlla yebale ko ko. ndeysaan. bi ko yàlla yebalee gis nga teraanga ki ko xadijatu defal. Mm-hmm. mu ne ko jëlee jëlal sa alal nga doxalee ko ni nga ko daan doxalee. Mm-hmm. man de mu utal ndimbal lu may dem di jaamu jee sama borom mooy. wulaal wàllum lekk ak naan. bu mu wéttalee boromam. nga gis ne teraanga googu ba mu gisutee lu xam sax da koo ñëw delloo si waat jigéen googu. mooy bi ko jibril feeñoo ne ko iqarax jàngal mhm. ñett ko ba pour xam ji di waaj a génn mhm. mu ne ko duma ma jàng xaw lu may jàng doon du ma jàng fekk ma jàng du ma jàng mhm. bi mu ñëwee amul kenn kum ko jooy jooyit ko omar jooyit ko abubakar jooyit ko ali jooyit ko kenn nday aysata la ko wax xadijatu la ko wax daf na ko sàgganee nga ma xadijatu sàgganee nga ma man di li may gis ni xaw ma lu mu doon am na lu may feeñu di ma ñett naan man jàngal nga gis ne or te xadijatu teraange bi mu jëfal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ak rasul xadijatu teraange bi nga xam ne ni jox na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak bi mu ko ko dellooyee moo tax mu am kóolite goo xam ne ni bu gisee lu ko jaaxal ci dundam sax balaa ma ko wax kenn moom la ko indi mm-hmm. waaye sëriñ bi waay waay waay lu mat a bàyyi xel lañu noonu mm-hmm. te ci seen réew mi ñu toll oh. warante bi dafa bari ci góor ñi ak jigéen du gis goor toppee ko ngir alal dem ba li nga bëggoon ci woom amatoo ko nga jël dundam lépp moom ko góor gi oh. nga bés war ko da gis ne da ngay dem su woor dafa doon loo xam ne ni dafa lëndëm sëriñ bi nit ñi da ngay dem gis ku woor mm-hmm. woor gi ñu koy jaawal rek rab wala ñu mm-hmm. koy jaawal rek def-def te fekk woor la mm-hmm. waaye alhamdulilah ñun li yàlla ballee ci suñ loxo oxsi bi rabbul kax ba bu ñu la suulalee sax ne la tay tay jii nii si la sa fan di yem ñun dañ la koy wax ñun dañ la koy wax nga gis ne kon sëriñ bi or moo waral sëy yu bëri mënta am or mooy waral sëy yu gaaw yi tas naan def def la wala rab lépp ci biir woor gi la rab nag naam am na mhm. def def na am na waaye fi société bi toll nii man may sant suma na man Cheikh Omar Niass mhm. ne leen benn sëy ñàkkuta am ci rab mhm. benn sëy ñàkkuta am ci def def waaye sëy yi amul yëpp ak sëy yi gaaw a tas yëpp ci woor la te sëriñ bi man lay wax lu bata bàyyi xel loo xam ne ni noté ko nga téye fi ñu toll nii ci réew mi célébrité yi ngay dégg fii ñu ci ëpp seen sëy dina tas tas yu gaaw yu ànd ak fitna yu ànd ak demante tribunal. Hmm? man Cheikh Omar Niass borom alquran borom kurus bi maa la ko wax sëriñ bi dama naan man fi ma bokk. Hmm. am naa kers. Hmm. am naa gàcc. jomm naa di wax. loo xam ne ni ëllëg dañ naan Cheikh Omar Niass waxoon nii man fi ma bokk. am naa kersa jomm naa rus naa di wax loo xam ne ni Cheikh Omar Niass ko waxoon te du dëgg. nee naa la fi ñu toll nii célébrité yi ngay dégg ci réew mi. Mhm. ak sëy yu bëri yi. Mhm. yu ci bëri danañ demante tribunal xam nga lu koy waral. orante ba sëyante moo am. warante ba tasante warante ba demante tribunal fa laa yem sëriñ bi salaamaaleykum. si xaw la lan mooy doon sa message ak tey lan ngay baaxee askanu Sénégal ñu boole ko kaddu yu mujj yi ci jotaayu tey bii. alhamdulilah maa ngi baaxee Sénégal rawatina tamit sama mbokk commerçant yi ak mhm. tailleur di leen di wax ne leen seen sanget gi ñëwati na. Mm-hmm. sanget gi ma leen di defal ci période ki ci période korité mm-hmm. alhamdulilah seen mbokk seen xarit Cheikh Omar Niass indeeti na ko. Mm-hmm. sanget gi nag ni ma leen koy faral di waxee waxtu bu nekk. sangatu cent mille bi la rek. lépp loo soxla ci client di ko am. képp ku ci joxe woon caution deux mois. Mm. bismillah boo laalee cangat gi da nga joxe caution un an. képp ku ci amoon benn machine. di tëyër. boo laalee cangat gi di nga am junnee machine. képp ku ci wàccee woon benn mètre janzineer pour jaay ko mhm. boo laalee cangat ji di nga am junney mètre wala junney dàmp yoo xam ne di nga ko jaay ci ko teg <laughs> maa ngi ciy la maa ngi koy baaxee di wax sama mbokk yi nga xam ne nii période bii mooy seen période mhm. seen mbokk seen xarit Cheikh Omar Niass indi na leen cangatam gi ngeen xam ne nii effectivement rek ko tax a jóg di ñaan yàlla itam ci réew mi mhm. yàlla na fi yàlla def jàmm allahumma amin yàlla na fi yàlla saxal jàmm amin yàlla na yàlla tappe xoli ñooñ Sénégal yàlla na yàlla méngoo jikkooy Sénégal yi ci zaahiran wa baatin ni ma koy faral di waxee waxtu bu nekk mm-hmm. képp koo xam ne ni yàqkat nga bi yeewoo ci réew mi te bëggoo réew mi am jàmm hmm. yal na la yàlla yàq amiin yal na yàlla damir sa xeer yal na yàlla suufeel sa nguur na yàlla suufeel sa daraja yàlla bu la yàlla may fatu ak tawfiix boo mën a siggee ba yàq réew mi bi góor di jigéen te bañ ko danee ñaan ba léegi sëriñ bi hmm. yàlla ñu koy may alhamdulilah yaa ngi gis yuy xew wallaay ndeysaan suñu ismullahi al azam rek lañ toog di ko ñaan bépp yàqkat bu nekk ci réew hmm. yàlla dina la weer diggi bëccëgu nar a kàmm maa ko wax man Cheikh Omar Niass. Mm-hmm. képp koo xam ne ni yaa ngi dugg ci ay jëf. Mm-hmm. ak ay yëf. Mm-hmm. pour yàq réew mii nii pour jaxase askanu Sénégal. yàlla dina la weer digg bëccëgu narkaam ak koo mën ci doon. ñan nañ ko yàlla. man jaam bii. di toroxlu ci suma kanam borom. doon ko xeebu ci kanam borom bi mhm. maa ngi ñaan borom bi mhm. amuñ lu dul ñaan ko moo ñu ñaan leen ma may may leen mhm. ñu ngi koy ñaan yàlla bu benn yàqkat am doole ci réew mi yàlla bu benn yàqkat jug ci réew mi yàlla bu benn yàqkat am daraja ci réew mi yàlla na yàlla dammir seen xayaat ñoom ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye Cheikh Omar Niass macha allah borom kurus borom alxuraan waaye nee naa borom sarax yu mucc ayib yi sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi sañ am mën tey def yal na yàlla taxaw la yal na yàlla sàmm la yal na yàlla aar la ndax ñu mel ni yow dañ leen war dañoo war a bëri ci réew mi ñu mel ni yow di di seeni kàddu ndax réew mi dafa bëri ñu bëgg a baax am nit ñu ay góor yu a baax ay góor yoo xam ne ñu bëgg a tege ci yoonu saatal siraatal mustaqim te ñooñu fi ni ñu mel ni yow la ñuy xool ñu mel ni yéen la ñuy seet kon sama borom sàmm leen sàmm leen ñu mbooleem njaboot yi wéral leen guddal seen i fan ba mboolem li ngeen nalal askan wi suñu borom defal leen ci lu kawe seen jot waaye askan wi tamit waaw ñoom it ñu sant bu baax a baax ci xamante yéen ak ci secret yi nga xamante ni ñu ciy jëriñ te a baax askan bi mooy suñu soxla moo tax ñu fay saa su di leen jéem a taatanal li nga xamante ni moo jàttu nañ ni moo gën ci su ñun ngir di leen ko jagleel di leen ko tegal ci biir télé bi macha allah rabbi sant leen bu baax a baax ñaanal leen kenn ku ci ne fa mu nekk lay bëggam ak yéenam ak ma biram suñu borom mi dul jeexal dara mën lépp sañ lépp am lépp yàlla na yàlla jàppandalal lépp ci la rajo Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam dig daje ci beneen jotaay ak seen émission bi nga xamante ne mooy faj sa jàngoro wasalaam ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàlla bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàlla Bienvenue sur Salam Vision.